asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo nuyu ñuy seetaan ñëpp ci réew mi ak ci bitim réew di ñaanal Serigne Muntaha mu yagg fi lool te mu and ko wër. Diko ñaanal nonu Serigne Bassirou Antagnan mu yagg fi lool te and ko wër. Diko ñaanal mbolem juliti yi réew mi yep. Ginaaw loolu itam dama dégg ben information bo xamné dafa ñew ci man ak mbokki talibé yi ñu né sëñ Xaadim Mbàkke Kamal dafa demoon Touba ànd ak i taalibeem di wër euh, foofee di jumaay Touba ji ma leen di wax ne loolu moom amul ñooñee di ko wër maa ngi ci bokk yam nii ngeen ko yëgee ak nii ngeen ko déggee rek noonu laa ko déggee euh, bi ma xëyee sama taalibe sax sama mbokkum taalibe bu bokk ci ma a ma ko envoyé ma toog ba mu nag am ñeneen ñu may woo téléphone ne ma dañoo dégg noonu dégg ñu ne yow da demoon foofu. ma leen di xamal ne rek ne lolu amul man gej na sax genn ndakaaru da naka wera ngi ni génnuma ko génn ko genn kon ñu xamne ne ñakoy wax ak ñak xamut nañu xamne ne bu amé it bunu bunu bunu, nu bu nu wax nanu xam li li ñuy wax lu mu doon dok ca wax jagam kooku japp nañ ko dañ topp lolé buñ ko topé xam ki doon man aw ñu ñak dégg ndigal man mi jiite leen ñàkkumaa dégg ndigal ndax am naa kilifa te ñi ma ñi ma jiite it am nañ kilifa te man du ma bay wër ay jumaa di tawaaf di tax ay tawaaful ifaada ak yeneen ak yooyu yooyu xam nga ne ku réer a koy def kon nag dama leen a bëgg a leeral ñi nga xam ne ñooy soppe yi ak taalibe yi ñu xam ne Xaadim Mbàkke tëddul loolu kon nag ña yor information yooyu di wax ak di yàq ak di ci proxnulu nañu xam ne loolu du jàll nañu xam ne man Xaadim tëdduma loolu te it maa ngi ci li ma tey tegu ci ndigal doon taalib Serigne Touba di jàng njàng dem Serigne Touba di ko jàngale wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu